juum ba yokk ca julli ga mbaa juum ba wàññi ca julli ga dana tax ñu sunnaal ci moom mu sujjóot ñaari sujjóot ndax defare ko njuumte loolee daañu leeral nag dolli ga mbaa wàññi ga nu muy demee ak lu ci nekk nañ koy sujjóotale bu dee wàññi moom mënees naa jàpp ne wàññi benn sunna dong dong du taxa sujjóot mu may nag day yelu mbaa biral yelu mbaa biral moom kenn ku ci ne benn sunna nga bu beru te ku la wàññi itam ñu digal ko sujjóot waaye ku bokkut ak ñoom ñaar ci sunna yi nga xam ne ñoo feddliku la ñuy feddliku feddliku bàyyi ca benn dong du taxa sujjóot kon nag bu juumee ba wàññi ñaari sunna ci sunna yooyu wala mu juum ba wàññi biral daañu ko leeral ci kanam fu waroon a birile fu ñu ko digaloon biral moom mu yellu fa ak wàññi lañ koy jàppee foofu kon na sujjóot xabla salaam xabla salaam mooy bu ràkka yi matee ba mu taayee ba nga xamee ni wax asalaamaaleykum rek moo ci waroon a des mu daal di sujjóot ñaari sujjóot ni daal di baamuwaat taaya ja nag door a salmal loolu mooy xabla salaam lu sunna limu limu nag ñoom ñëpp la ñuy boole rek sujjóotal leen sujjóotu jamooj boobu muy ñaari sujjóot ñooñu ñu bokk ko ñoom ñëpp samihallaahu liman hamida sunna la bu feddaliku bàyyi ca benn dong du taxa sujjóot bu ca bàyyee benn ba tax koo sujjóot julli nga yàqu waaye nag bu ca bàyyee ñaar mbaalu ko ëpp sunna la mu def sujjóoti jamoo ji ba tey ràkk bu jëkk mbaa bu ñaareel bu ca bàyyee aw saar saar wa sunna la nga xam taxawaayu saar wa wala yàlla gu mbaa biral ga ci yooyu jamono lu ca nekk sunna lay doon kon nag saa yu bàyyeewu saar rek na sujjóot xabla salaam bu amee ñaari ràkk ñu diggaleen ko toog taaye mu fàtte ko jóg ba nga xamee ni ay loxoom ak ay bëtiwoom dara loolu ci suuf dañ ko wax ne ko jàllal ko defee nag mu xam ne bàyyi na taayu digg ñu diggal ko sujjóot xabla salaam fu ñu ko diggalee biral ni ki ñaar ràkk yu njëkk ci timis wala ñaar ràkk yu njëkk ci gee wala ñaar ràkk yu suba moom na mu juum ba yelu kon daa mel ne ku wàññi kon nañ koy digal xabla salaam allahu akbar bu ne boo weesoo bi ngay njëkk a wax allahu akbar bu ne sunna la te fet li ko boole ca bu ci bàyyee benn du jar a sujjóotal bu ko sujjóotalee sax julli nga yàqu waaye nag bu bàyyee ñaari allahu akbar mbaalu ko ëpp kon na sujjóot xabla salaam ñaar su fekkee ne itam julli ga yaari taay yépp la bàyyi taw ca benn yoon dañ koy digal kon sujjóot xabla salaam su fekkee ne itam dafa bàyyi jataayi taaye ya daa mel ne nag saa yoo bàyyee jataay taayi rek bàyyi waale taaye ja boo woos na nga xam ne su bàyyee jëmmi ñaari taay yi moom mën naa mu toog diir boo xam ne taayi xaj na ca te taxul mu taaya waaye saa yu bàyyee jataay rek moom faw rek mu bàyyiwaale taaya ya mënees naa takk rek ne taaya bu ne akub jataayam sunna yu fetliku lañ saa yu bàyyee taay rek moo xam ju jëkk jee moo xam ju mujj jee na sujjóot xabla salaam ñu bañ a fàtte ne su amee ñaari rakk ñu digaloon ko toog taaya su ko see jóg rek ba ay loxoom ak ay bëtiwoom nawatu suuf na jàll rek te bañ a dellu si wax di gën a wër nag mooy bu dellu see toog taaya itam du tax julli ga yàqu am na sax ñu wax yàqu ga waaye wax di gën a wër mooy bu yàqu day sujjóot rek ba xam de salaam ñi nga xam ne nag ñu ànd ak ku leen di jiite li ci ëpp dañuy gaawantu tey jiite bu amee ñaar ràkka fàtte ko ba jóg du tey ñoom ñu toog diko wax subhanallah subhanallah ñu xamne nak fofu desu ko sabal bu amé ñaar rak dal faté tay tay digg bañ gis ne jog na ba ay loxoom ak ay bëtimam dara laalutu ci suuf dañ koy fekk rek te bañ koo sàbbaal moom itam nag buñ ko sàbbaalee bu mu juum tax ko dellu ci toog taaya na xam la mu def noonu la war a def bàyyi rek ñoom ñi fekk si ko xabla salaam moom njëkk sërmal lay firi saa yow ko déggee rek mooy kooko daa juum wàññi ca julli ga ñu digal ko bu jullee ba ràkkaya mat mu taaye ba taaye ji mat laata muy wax asalaamaaleykum mu sujjoot ñaari sujjoot ni baa mu waat taaye ja door a salmal loolu mooy xabla salaam foo ko fi déggee su wàññee nag wàññi kese mooy li nga weesu xabla salaam boobu lay def fi mu toll ci wéy nag mooy bu fekkee dafa dolli ci wet wàññi ci wet mel ni am rakk boo xam ne jëngu ci aw saar ba noppi tam nag yokk ab rakka fekkee yokk na ci ràkk yi julli ga ab ràkk ba ab ponk sax ni ki rukkoo ñaari yoon ba sujjóot ñaari yoon ba noppi nag fàtte jàng aw saar ci ràkk bu jëkk mbaa bu ñaareel kon yokk na ci wet wàññi na ci wet day ëppal doole wàññi ga daal di sujjóot xabla salaam te bañ a sujjóot ba da salaam su fekkee daa juum nag ba yokk ca julli ga waaye yokkub kese la wàññi bokku ca yokk dong dong la mel ne mu yokk ab rukkoo mbaab sujjóot mbaab rakkab lëm yooyu yëpp day sujjóot baxda salaam baxda salaam day firi gannaaw salmal mooy su jullee ba julli gi mat ba mu wax asalaamaaleykum ba noppi daal di sujjóot nag ñaari sujjóot dellu baamuwaat taaya ja baamuwaat ba tey salmal ba loolu moo tudd baxda salaam fu ñu ko digal yàlla ni ki tisbaar bu fa waxee ci kaw rek day mel ni ku yokk kon day sujjóot baxda salaam daa wax ne boo juumee ba yokk ab ràkka ni ki ab rukkoo mbaa sujjóot kon ngay sujjóot baxda salaam booy sikki sàkk julli gi mat naa matut da ngay jàpp ni matut daal def ba wóor ne mat naa boo sëlmalee nag ñu digal la nga sujjóot baxda salaam ndax toroxale ko seytaane ba tey booy sikki sàkk ci limu ràkk ya nga julli mel ni ngay sikki sàkk ba xam benn ràkk nga julli wala ñaar wala ñaar wala ñett wala ñett wala ñeent da ngay jàpp la gën a néew te gën a wóor daal di jàll àggale ba noppi nag boo sulmalee ñu digal la ba sujjóot bax de salaam mu ne booy sikki sàkk benn ràkk nga julli wala ñaar da ngay jàpp ne benn nga julli booy sikki sàkk ñaaram ñett ngay jàpp ne ñaar nga julli jàll nag ba mat boo sëlmalee sujjóot bax de salaam saa yu dee julli lekk-lekk goo xam ne bëriwut te tëyu ko wala mu naan naan goo xam ne bëriwut te tëyu ko wala mu julli ëf ak gimiñam ëf goo xam ne bëriwut te itam tëyu ko yooyu yëpp loo ci xam ne daa beru di leen dong da koy sujjóotal rek bax de salaam mu daal di doy di ki muy julli tib benn tib sàqami ko wan na waaye tëwu ko julli ga du yàqu day sujjóot rek bax de salaam wax na ne moom bu ko tayee moom lu mu lekk lu mu néew néew julli ga yàqu waaye itam la mu doon doon njuumte bu lekk ga bare daal di yàq julli ga naan gi noonu la bu naanee tuuti moo xam ndox la moo xam soow la moo xam leneen la waaye tuuti la te tëyu ko day sujjut rek bax de salaam su ko teyee lu mu néew néew julli ga yàqu su fekkee tëyu ko waaye lam naan bari na it julli ga yàqu ba tey julli ëf ak gimiñam it su néewee te tëyu ko mel ni ëf benn yoon ba ñaar rek day sujjut bax de salaam waaye du yàqu waaye su baree rek la muy doon doon njuumte du tee julli ga yàqu wacc dañoo waxoon ne lay tee mu yàq julli mooy wacc ma bañ a soppiku nga xam ne nañu ma meloon rek la mel bi mu koy waccu wacc mu laab la te it moom tëyu ko da ko rëcc mbaa mu juum rek te it wënnaatu ca dara ci gannaaw bi mu agsee ca gimiñam nga xam ne bu ci wanaatoon dara rek ci tey julli ga yàqu su fekkoon wàcc ma soppi ko it julli ga yàqu fekkoon na it dafa yàgg ca wàccu ga it julli ga yàqu ni waxe nag mooy bu fekkee ne li yàq julli ga amu ca kon na sujjóot bax de salaam day wax ne wax assalaamu alaykum goo xam ne fekkul julli ga mat waaye njuumte rek waral moom it dañ koy sujjootal bax de salaam ak yokk lay doon saa yoo salmalee ci sa julli te fekk julli gi matut waaye njuumte rek tax da ngay daal di àggale julli gi ba noppi nag sujjoot bax de salaam su dee sikki sàkk nag ndax julli gi mat na wala matut ba noppi nag wax asalaamaaleykum moom julli ko day yàqu ndax dañ ko waxoon ne ko booy sikki sàkk mat naa matut da ngay jàpp la gën a wóor mooy matut su amee ñaar rakka ñu digaloon ko toog taayu taayu digg wala mu fàtte ko jóg jëm ci rakkab ñetteel dañoo waxoon ne ndegam ay loxoom ak ay bëtiwoomam laalatu suuf na jàll rek jàpp ne bàyyi na taayu digg te su jóot xabul salaam moom nag moom nag mu dem ba taxaw jonn te teew ko dellu ci taaya taaya ja doora jàll àggale julli ga wax ja gën a wóor mooy julli ga du yàqu te su jóot rek bax de salaam foo xam ne dañ koo digaloon mu bañ faa toog bu fa toogee rek ci njuumte li ki benn rakk du bërëbu toogaay ñetteelu rakk bu fekkee lu timis ba tey du bërëbu toogaay su toogee fu mel noonu ngir njuumte nag kon na sujjóot bax di salaam ndax ab yokk lañ koy jàppee lépp loo xam ne farata la soo ko bàyyee moom faaw da nga koy indi rek waaye sujjóot mënu koo defar su fekkee ne dabaatal ga wéyut mooy def ga wéyut nga def ko su fekkee dabaatal ga wéy na da ngay julliwaat waaye sujjóot mënu koo defar boo fàtte woon a jàng faatiha kon dem ba sëgg diru koo door koo fàttaliku da ngay siggi taxaw daal di jàng faatiha door a ñëwaat ci rukkoo bi soo fàtte woon rukkoo it dem bay sujjóot door a fàttaliku ne yow kat rukkoo da ngay daal delluwaat taxaw boo taxawee ñu sopp nga baamu dara ci njàng ma la gën nag moom bañ a doon fatiha ja te doon ca saar wa ndax fatiha taamuñ ko ko jàng yaari woon ci benn ràkka kon léegi ba ngay sujjóot fàttaliku ne rukkoo ñoom la dellul ci taxawaay ba dañoo bëgg boo dellul ci taxawaay ba nga jàngaat lu bokk ci alxuraan lu bokkut ak fatiha door a def na rukkoo bi nga fàtte woon boo fàttee benn sujjóot mbaa ñaar it noonu la moom daal lépp loo fàtte rek saa yoo ko fàttalikoo da nga koy def ndegam dabaatal ga wéyut lay tax dabaatal ga wéy nag mooy weesu nga ràkka booba ba jàll ca ba ca topp ba rukkoo ca ba siggi ràkka ba sës ca booba boo demee ba rukkoo ca ba siggi rek farata joo fàtte woon ci ràkk ba ko jiitu doo ko mën a defati da ngay jàpp ne boobu ràkk bokkatul ci julli gi nga weccee ko beneen ba tey nag ràkk ba nga xam ne moo mujj ci julli gi moom boo ci bàyyee farata lay tey nga mën koo defar mooy nga wax asalaamaaleykum joo xam ne da ngaa jàpp ne julli gi mat na ràkk ba ci mujj boo ci bàyyee farata dem ba wax asalaamaaleykum joo xam ne booba jàppoon nga ne julli gi mat na kooku moom farata ja nga bàyyi ci ràkk bu mujj boobee doo ko def moom dong dabaatal gi wéy na da ngay julli ab ràkk mu wecc ci booba jëmmi ab ràkk ci bopp lëm ngay indi yi mu wax yépp nag boo fàttalikoo farata ja nga fàtte woon ba def ko boo sëlmalee na nga sujjóot baxada salaam ndax li céet boo ko seetloo dana di am yokk goo yokk ca biir rawante na nag la nga fàtte woon mën ñu koo dabaatal ba nga far indi ab rakkam wecc booba ndoo leen dëgg dëgg lay doon lu set wecc su boobaa kon na nga sujjóot baxada salaam li mu ne wala xafiifi sunnatin soo bàyyee sunna su woyof man ngaa takk lañ la waxoon ne la sunna bu dëgër sax boo ko bàyyee tamit benn dong kenn du ko sujjóotal lu may nag muy yelu mbaa biral yelu mbaa biral moom ku ci nekk kenn la te doo te boo ko bàyyee fa mu dëkk defoo ko fa daañu la digal sujjóot waaye jàppal ne bàyyi benn sunna dong moom du tax a sujjóot benn yoon boo xasee teg fee yeloo biral bàyyi ngëneel tam mel ni xunóot ak mbooleem yi nga waxoon ni ngëneel lañ ci julli bàyyi ca lenn du tax a sujjóot boo taxee sujjóot rek far julli ga yàqu benn sunna sax bu fekkee du yàllu mbaa du biral bu la taxee sujjóot rek julli ga yàqu soo àndee ku lay jiite bu dee sujjóot xabla salaam te fekk mu raw la du tee da ngay ànd ak moom def xabla salaam ba ndegam xës nga am ci julleem lu mat benn ràkk rek bu sujjóot xabla salaam nga ànd ak moom dañoo waxoon nag ne su fekkee amoo julleem lu mat ab ràkk moom bu dee sujjóot xabla mbaa bax da saw woon nekku ca boo ko teyee mbaa nga umpale ba defandoo ko moom baa nga def ko ci gannaaw bi rek sëg julli yàqu bu dee njuumtee tax waxoon na ni moom di yàqu fi mu toll fii nag mooy ndegam fekk nga ci julleem lu mat benn ràkka bu ilimaan dee sujjóot xabla salaam dangay ànd ak moom def ko bu dee sujjóot ba xam salaam nag ndegam dalaa raw nga bàyyi ba fay lam la rawee ba noppi nag door a def yow ba de salaam dañ ko joxoon ndigalul ilimaan raw na la waaye yow fekk nga ci julleem lu mat benn rakka kon nag bu dee sujjóot xabla salaam àndal ak moom bu dee sujjóot baxde salaam nga bàyyi ba fay ba noppi mu ne nag bu defut loolu ak julleem yàqu nekk ilimaan day def xabla ñu digal ko mu ànd ak moom defandoo ko ak moom mu bañ a ànd ak moom def ko kon su ko teyee mbaa ñàkk xam waral ko julli gi day yàqu ba tey buñ ko nee baxadi salaam bu ko ilimaan dee def bul ànd ak moom da ngay bàyyi ba fay ba noppi door koo def moom nag mu tey ko ànd ilimaan def ko te fekk fayagut lañ ko rawe mbaa ñàkk xam a tax ak julleem day yàqu bu ko defoon ngir njuumte nag moom ñu ko waxe woon ci gannaaw julli ga du yàqu ki lay jiite moom boo xasee ànd ak moom ba am ci julleem lu matub ràkka xamal ne kon yow itam nag la nga ànd ak moom boo ca juumee ba bàyyi ca loo xam ne bu doon ñëw doon ñu digal la ca nga sujjóot ilimaan gàddu na ko du aajowoo nga di ko sujjóotal mel ne nga ànd ak ilimaan te waxoo allahu akbar lu mat ñaari yoon baalu ko ëpp bu doon sa julli yow doom ñu digal la nga sujjóot xabla salaam ndax loolu wàññi la waaye nag ndegam ilimaan nga àndal ca booba ilimaan gàddu na ko la nga ànd ak moom dong nag lay gàddu bu la rawoon nga jóg bay fay ba ngay fay nag saa yoo defee ñu ñu digle ku ci sujjóot xabla salaam ba baxdi salaam def ko te xam ne ilimaan gàdduwu ko la nga ànd ak moom rek la la gàddul boo xasee am julli ilimaan lu mat benn ràkk rek jeex na niñ ko waxe woon léegi sujjóot bi ñu ko digal rek digal na ko yow itam doonte sax ba ilimaan di juum juumte boobu fekkewoo ko daa bokk ci lam la rawee mbaa moom mu juumte te yow juumoo ca du ci dara ndegam am nga julleem lu mat ab ràkk rek sujjóot bi ñu ko digal digal na ko yow itam mooy nag bu la ilimaan rawee faaw nga bàyyi ba iman silmal nga door a fay lam la rawee dañuy bañ iman di nekk bu yéex ab julli mu rawe la benn rakk bi nga ñëwee ba ànd ak moom nag ngay naan naa daal di gaaw def li mu rawee ànd ak moom fekk ko fa mu toll su sëlmalee du jar may def la ma rawoon loolu du baax araam na ngay fay la la ilimaan rawee ci biir julli ilimaan maanaam ilimaan sëlmale gut ngay fay la mu rawe woon loolu lu araam la faaw rek nga bàyyi ba ilimaan sëlmal nga door a fay lam la rawe woon balaa bëgg a takkal li ñuy wax naa boo ànd ak ilimaan ba mu sëlmal te fekk mu raw la soo jógee ba taxaw gannaaw ba mu sëlmalee soo jógee ba taxaw da ngay wax allahu akbar doo tàmbalee jàng fatiha ak boo wax allahu akbar da ngay jekki-jekki tàmbalee jàng fatiha mu takk mu ne nag takk-takk bi mooy su fekkee ne julli ilimaan ba fekkiwoo ci sax lu mat benn ràkk nga xam ne taay ji rek jëcc mujj nga ko fekk waaye amoo ci lu matub ràkk wala nga xam ne fekk nga julleem ñaar rakk rek yem ci ëpp ko yeesu ko yooyu yaar daal su ilimaan sëlmalee da nga jóg ba taxaw da ngay wax allahu akbar door a tàmbalee jàng fatiha waaye lu bokk te yooyu yaar rek bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw da ngay jekki-jekki tàmbalee jàng fatiha te bañ a wax allahu akbar loolu nag mooy julleem fekk nga ca benn rakk doom matul ñaar mbaa fekk nga ca ñett nga xam ne ëpp na ñaar mu ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw daal foofu bul wax allahu akbar da ngay jekki-jekki tàmbalee jàng fatiha